ndeway ndeway ndeway sey mane ndewoy alay katim kam mangala ya njaay waaw ki benn ndongal dar la bo xey mi ngi dekk Touba fa la magge fa la yoro ñew Dakar depuis 96 ba legi yalla dogal tamit muy dox di dox ba xey bëgg lamb ay quatre quatre vingt dix la commencé nak di dugg ci ay mbapat diko ko dañu don doon dem ba table Tiwaawoon seetaan ku mel ni Maxime Bergane ay Pape Diagne Seras ñoo fa doon organiser ay mbapat yoo xam te ñoom ñëpp dañ leen doon dem di ko seetaani muy amour boo xam te ni bu xol bu la xasee ba dugg rek mën na laa def loolu loo xam te ni mën naa am du doon sa jikko mën na laa yàqal lu bari aussi parce que bëgg-bëgg la quoi te man damay jàpp ni nit lu mu bëgg tant que wu ci rek daa mel daa des ñun nag foofu la ñu laamu yeggoon léegi nag ñu ko doon topp di ko dox di ko dox di dem bay dund bay dem istaat doon supporté ku ñuy wax Moustapha Gueye ak waa de Fass yëpp nag Euh, ñuy dox di dox di dox ba yàlla xel ñu ci ñu war a bëgg tëgg làmb ñu ciy dox encore di ci dox ba xëy daal ni ah ñun de est-ce que pourquoi waruñu mën a dugg jéem a est-ce euh, ay làmb ñu def ko nag fa ñu nit ñu baree bare taw tàmbale woon di ñu xam daal. mooy li ma la wax départ rek bëgg-bëgg dong parce que nee naa la man li ci gën a ci sama mbir jigéewu ma kenn ko xam tey bëgg na làmb jigéewu ko. sama yoonu bopp laa ko jëlan bëgg ko rek te yàlla rek tax parce que loolu day am ku tam rek kenn ku ne am na loolu yàlla di nattoo man làmb la ma yàlla nattoo amul beneen ponk bu may ma def leneen nag làmb rek mooy sama cat moo tax bi ma ci dugg maa ngi ci dugg 2005 waaw entre 2005 2006 bi ma koy seetaan wax naa la ko def naa ci 5 ans door ko organiser waaw mais bi ma ci dugg tam aussi fekk naa fi daanaka ñetti promoteur laa fekk yun meen sëñ Maodo Niang wala ñeent Gaston Mbengue Luc Nicolaï ak Pala Mbengue Petit Mbay laa fi ñëwandool ñoom Assane Ndiaye ay Bawol production boobu ak Kanji ñoom Fall ñoo ñëpp sama ginnaaw lañ ñëw man ak moom maa maa ngi Nday Ndiaye tey seen daal ak euh, Petit Mbay action 2000 mën naa ne ñoo fi ñëwandoo am na yenn promoteur yoo xam te ne mën nañ cee buñ ñu demee ba ci biir dañ ci gën a waxtaan ñoo xam te ne ay ancien lañu ñu leen daan ay Merson production ay Vanar production ay ñeneen ñoo xam ni bari nañu daal ñoom ñëpp dañoo bàyyi mais ñooñu lañ fi nekk ndooloon après ci la ñoom Assane ñëw Asi Ndiaye mi ci la ñëw Fallou Ndiaye mi ci la ñëw ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam te suñu ginnaaw Pa Abdou Fall sax ba tey ñun ñoo fi jiitu wa ñooñu lañ fi da fekkandoo woon mais bu ñu ñëw tam aussi comme ni ma la wax rek suñu bëgg-bëgg lañ ñëwoon doon ci bàyyi suñu waar comme ni ko ñëpp yi defee boo ñëwee fekk benn mbir boo ko yokku rek yow yaa ko wàññi ñu doon jéem a yokku nag waaw moo tax ñu ñëwoon fekk fi ay xale yoo xam te ne yàlla ñooy nattu tamit ñu bokk dëkk parcelle gi ñu nekkandoo woon di ànd ak ñoom ba yàlla xel ñu ñu dugg ci làmb ñu ànd ak ñoom den organiser nag pour nit ñi xam leen ñun tamit nit ñu xam ñu waaye foofu daal la ñuy doore suñu làmb waaw pourtant mitiwul woon lool xam nga lu tax mitiwul woon lool làmb jamono boobu daal séerut voilà pour nga def budget combat waaw lu yomb la woon nga def ko mais tamit comme li ñu ko doon jaay tam aussi séerul et puis amutoon ay du tax nga génn ci du doon yomb parce que euh, billet 1000 francs rek lañ ko doon jaayee loos nga mën a jaay 2000 wala 3000 mais jamono boobu ticket 1000 francs kese nga ko mën a jaayee làmb ju mag lool ngay am door ko jaay 1500 wala 2000 pour génn ci waaye ñun jamono yi ni tëgg làmb wax dëgg yàlla ticket 1000 francs kese lañ doon jaay loolu nag pour nga jaay ci budget bu mat 2 millions képp ci biir gisee non yoomutoon jamono boobu quoi wax dëgg yàlla non sponsor sax daanaka daanaka dama naan amut ay benn benn la woon dañ lay musal wax naa li lay musal yàlla xam ne du génn làmb ci wala mënul fay mën na mën na mënul sax fay du génn stade bi sax daanaka boo calculé drapeau yi ngay defar ak yenn euh, faire organisation ci biir stade bi li li dugg noonu non fofu lay yam loolu motax pour nga génnoon ci nak do won yom mais nak pertement ba du metti parce que wax naa ne budget ci mo bari wut won moo motax danaka la nga ci ñak pour nga defaat ko non du metti lool parce que bëgg-bëgg la woon quoi da ko don jar ah, Modou yalla dafa dogal nak mom da yoro fi sama karam ñoo dëkk xam nga mi ngi fii interdit sama koñ ñi ñoo dëkk mom bi mi jang bëre ci sama karam la ko commencé ñuy and ma don jël sama auto di di ko yóbbu isaat pour jëndal ko biir mu seetaan boobu day ba mbapat commencé gul bëri arène de mais yàlla dafa ko xeloon ci man nag mu jege ma trop su jógee entraînement sama koñ lay jaar léeg-léeg mu dugg sama néeg ma yëkkati 1000 francs may ko mu dugg fii ci fi ñu wax say ñebbe dañ ko doon tooje sax dafa doon dem lu bari quoi mais ñun tam aussi ñu jàppan ko te xam ni xale la woon boo xam te ne amoon nañ ci moom yaakaar mais yaakaar ji desul nag ndax suñ demee ba kon wàcceel nañu moom tam aussi vraiment wàcc na quoi noonu la ñu dikkee ñu ànd ak moom di ko tëggal même ay mbapat xam nga di ànd ak moom ba yàlla xëy ñu ci tëgg làmb kon dañ koy tëggal arène même licence maa ko ko wutal maa ko booleeg baabu financière wax ko ko woo ko mu ñëw sama néeg ma yëkkati 30 000 jox ko ñu ak 20 000 francs sax ko jox parce que 40 000 lay bëre après boole koog mbër bi ñu doon wax Pape Sène numéro 2 mu ngi nekkoon écurie Bawol Ousmane Dëgër la tudd ñaa ko Pape a bëreel voilà kon yaakaar naa jéggi diwuñ ko. 40 000 francs te yaakaar naa fi ni kasem passé na 100 <laughs> kon macha allah. des nañ ci gis suñu bopp nag. ndax ni ñu war na demee. demee duñ ko ndax ki ñoom dañuy toll foo xam ne benn instant gis leen képp daa jafe waxtuma la voilà parce que ñoom dañuy toll foo xam ne des fois nag doon ci ñoom. waaye nit mooy toll jamono boo xamante ni tolluwaayam lay doon moo tax dañ ko koy nangul mais tam aussi fàttiwuñ ndax des fois ñu jot ko téléphone. des fois ñu gisante day xaw a sore nag mais jot gi moonu ko mayut moo tax jàpp wuñ ko dara no jàpp ne bañ koy bañ koy def tam surtout ñu ci woon dara lu dañ ko defoon te parce que boobu ñoo ko tane parce que nit su fekkee nga mën koo yóbbu stade jëndal ko billet làmb su soxlaa lu mu lekk nga ko pour man yaa ko tane ñun noonu lañ ko doon mais defuñu ko woon pour bu ëllëgee soo amee dara moom la ñu defal waaw ci mais vraiment fàtte rëccu wuñ ko daal mën naa ni waaw buñ amee lu ñu rëccu daal mooy li ma ñoom dañu am temps boo xam te pour nga ak ñoom ak am ci ñoom accès sax dootul yomb te loolu tam aussi du doon loo xam lu ñu la parce que nit tamit aussi bu fekk yàlla dafa dogal ngeen di ànd ci tuuti ba mu tollu fenn fi waaw war nga leen di bàyyi xel ci ñi nga xam te ne ngeen doon ànd même bu dul dara sax nga ba xam ci lan lañ nekk géej a gis ngeen géej a gise mi ngi si jàmm loolu sax tamit dafa neex nemmeeku bi rek même boo ko joxul dara sax mais ba mu xam ci lu mu nekk yaakaar naa lu am solo très bien yëg-yëg na séentu woon naa naa ne lu mu yàgg-yàgg mën naa doon roi des arènes parce que wax naa la ne ma njëkk a xamante ak moom mun naa ni dañoo njëkk a bëri géej man moom ci fo parce que dañu doon bu dimanche jotee ni di eh, ay bu laam amul day dem géej dafa toog nii foo ku na xam ne ni géej boo fa baree foo sax ndaw noo def mën a bëri ma ñëw fekk muy bëri ay xale yu ndaw mais taay bi mu yor daa ndaw te comme ñun ñoo ko mag ñoo ko ëpp doole jàpp nañu ñun ñoo ko man ma gis ko ni muy daane bu xaw a yow man ko kaa ñu bëri bi ñëwee taxaw dëgg sëgg bëri defuñu une minute mu daanu jël boo xam te ne yàlla xam na ne keroog damaa xaw rus parce que li tax ma xaw rus mooy ni ma toll ci kanamam jàpp woon jàpp woon jàppoon naa ne loolu waa wóor man loolu quoi ci laa xam ne kii ko ko jàppale kon a dem keroog bi ñu bi ñu dimanche bi mu delsee dama ko doo wër pour fayu mais balaa balaa balaa balaa loolu non commencé naa koo fan ba ne kii du ma bëri moom quoi kii pour man pour man jàppale ko moo gën ne fi di ba parce que ñun nekkuñu ay mbo dañu paa paa doon ko fooye pour nekk mbër waaw maam comme na ngay nekk géej di fo rek waaw loola loo sentir da koy def boo xasee egg si lu rëy la nag wax dëgg yàlla parce que kon kenn ku nekk xam na ni lii olof naan bitu borom bitu mbagg ba gis xol ba boo ko xaree maa ngi seen nga fekk loolu moo leen fekk moo leen ci dikk boo gisee yeneen boo yi kenn ku ci nekk dañu raaj sa bopp te pourtant moom da ciy siiw rek egg fenn fi mais fi ñu jaar ak moom bari na ñeen ñun fa jaaral mais moom yàlla moom la teg mu egg fii mu egg ci niveau bi egg nii mais wax dëgg yàlla am na ci yenn boo yoo xam te ne ñu ngi ci wetam dañu doon jàppale comme niñ ñu doon jàppale Modou bésam moo fees ak ndax fi mu toll ñen ñi dañuy échec la te loolu mooy àdduna ñi lépp loo xam te nit def na ko jarañu ko rek nit def na ko tamit mu échec voilà noonu la demee mais daal vraiment ñun amuñu si benn réccu et puis lii moom séntu woon nañ ko si moom gis nañ ko waaw dañuy ñaan mu yàgg ak roi bi roi bi roi de arènes bi mu yore nii rek noir day am ci làmb nit mën nga koo man ba pare saa bu ñu bëri mu daana loolu soo ko waxee dina jaaxal nit waaw parce que li firnde bi rek pour fu fu ko amul seen fekk moom Balla Gaye da koy daan te moom day fooy amul seen moo tax nit mun nga koo man ba pare te doo ko daan bête noire day am ci làmb man fii nii dama gëm ni même troisième combat bu ñu bëriwoon Balla da koy na daan ku man Balla Gaye foofu te te te loolu ci a xam dara loolu day am ci làmb sport moo demee ñoom ñoo génnandoo ñoom ñaar ñoom ñoo génnandoo man xam naa xamoo ni man Balla Gaye man maa ko njëkk a jox avance arène te ñu bëree bëri xamuñu loolu maa ko njëkk a jox avance arène mais nag njëkkumaa bëreel parce que li ko def mooy Euh, bi ma demee tableau Tivaouane dama ko fekk muy bëre ba dem final mm-hmm. Maxime Bergaay ma laaj ko ñu ne ma kii doomu Double la Balla Gaye ni jamet ak Simon numéro 1 daa Balla Gaye naa sama booy yi dañu doon bëri ñoom laa doon si fekk man moom xamante nañ après ci laaj ma ne munu munu ma kii sama école de la nekk ma ne ko waaye kii du ngeen ko wutal licence man dama bëgg organiser làmb ma boole ko samay combat Balla Gaye daal daal ci kontaan bi a dee mm-hmm. daal di jëw jël samay coordonnées ñu commencé ci waxtaan munu su làmb ji ubbee dama koy wutal licence suñ ko joxe combat mu bëre xam nga jamono bobu ñun buñu taxawal lamb duñu xaar ba CNG bi mhm. so gisee combat bu la doy rek da ngay jël avance amul contrat amul dara comme niñu ñu ni rek mun mu na yëkkat sama avance joxal te xam ne di nga ma dem ci yalla sa génn ñukoy ñaanal yalla yëgal ko xaar ko ci aljana gëna kawé mom moko yoron mom la ñëkk jox sama avance mom comme li fay mudlo la ko fayen 40 millions 20000 francs la yëkkati won jox mhm. légui bima ko ko joxé bi lamb ji ubi fekk tamit gasson joxal nako benen avance muy ñaar avance te pourtant bi ma ko déggee kaas na sa dem ci père sag max ko ni ko sag jën yow dégg naa Gaston Mbengue dafa jox la gay avance munuma du ci dara xalé la day door a tàmbalee su làmb ji ku ci ñëk am dat yow lay ñëk bérél mais du tay mu bérél la man ma jël sa xaalis dalay bérél après mu béré mbeur bu ñuy wax sambalaw be deux semaines après ci la ma bérél man wa fekk tamit li gëna a tax mu gëna tardé bi ma ko wuti adversaire gaaw yu bari xamaguñ ko woon ton contacté naa fi ay mbër yu xaw a bari ñu bañan koo jël ndax gis nañ ni li muy def ci mbappat mi te comme doomi mbër la mi ngi door a ñëw ñëpp duñ jël risque pour jël ko waaw après laa ñëw boole ko mbër bu ñuy wax daam kanji fii ni rock énergie la nekk ci ñoom Modou Lo après ma jox ko combat boobu waaw moo tax ma ne ñoom ñoo génnandoo woon ak Double Less numéro ñoom ñëpp ñoo génnandoo woon même année waaw moo tax daanaka dara du la bett ci ñoom fi ñu ci egg nii daal waaw séentu woon nañ ko nag Anu di meja mana kemarin